réew mi ci wàllu politique maître Cheikh Tidiane Touré lañu ciy dalal moom moo nekkoon njiital cadre libéraux yi bokkoon itam ci parti démocratique sénégalais ak jegeñaale président Abdoulaye Wade maître Touré ñu ngi lay nuyu am mbégte dalalaat la ci démb ak tey. kon boog maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di lu lii nga xamante ne nii da ngeen koy def émission bi mu nekk fàttaliku bu am solo. surtout pour xale yi nga xamante ne nii ñu mën nañu wax ne beneen génération moo ñëw. Mm-hmm. kon boog di leen fàttali li xewoon démb. dafa am solo trop. Euh, le fait que nag ñu tànn ma ci c'est pas la première fois. Mm. à chaque fois que euh, ñu soxla ma damay ñëw. Mm. oyofal leen liggéey bi parce que journalisme dafa metti mm. donc il faut que ñu xam ni rek euh, ñun ñu ngi fi pour ñoom. te am naa yaakaar ni étant donné que léegi presque bàyyi na politique bi. Mm-hmm. ñuy ñëwaat ci ñun di ñu fàttaliwaat dafa nekk loo xamante ne nii lu am solo la. li tax aussi ñu gën la di tànn surtout bokk na ci ne libre nga tey ci politique kon yow booy wax mën ngaa wax loo xam ni euh, lu ñuy mën a jàpp la doo ca am loo cay calculer bokk na ci ci critères yi waral euh, lu ci bari dañu lay solliciter ndax am na tey peut-être ñu nekk ci làng gi ba léegi boo leen woowee dañuy tànn <laughs> lañ lay wax ak lañ leen dul wax selon li leen arrangé donc euh, loolu itam bokk na ci li waral ñu lay jox kàddu rafetlu itam disponibilité bi. alors Maître Touré nga nekkoon euh, cadre euh, président cadre libéraux yu parti démocratique sénégalais euh, élection présidentielle bu 2000 yu ko jiitu ngeen am ay élection yu bari yu ngeen dem di ca ñàkk ñenn ñi ñu leen ciy jàpp di leen ci tëj mais 2000 lan moo nekkoon particularité bi ak naka ngeen ko waajalee dëgg-dëgg. waaw 2000 dafa nekk situation boo xamante ne nii effectivement dafa amoon solo trop trop trop. parce que euh, mën nañu wax sax ni avant mille bi ñëw 1993 bi nga xamante ni dem nañ élection ba am ci ay résultats yu bari ba nga xamante ne ni situation bi compliqué na trop ba ñu dugg ci maanaam euh, le gouvernement élargi mu nekk euh, une situation particulière mm. bon man nag élection yooyu duñu woon parce que en fin de compte euh, bi nga xamante ne nii gisante na ak Ablaye Wade ba intégré le PDS en 1988 dama ne président mu ne ma ah ma ne que li tax doo jël pouvoir bi mooy dëgg la xale yi topp nañ la ñu bari topp nañ la mais amul structure boo xamante ne nii ay borom xam-xam lañu ay cadre lañu. loolu nag boo ko amul effectivement dinañ ne tout le ay xale koy topp ak yoo xamante ne nii mouvement bi leen neex et tout cela kon yow bi ngay ñëw PDS amul amul structure des mu ne ma waaw léegi qu'est-ce qu'il faut faire ma ne ko nañ créer structure des mu ne ma cadre ku leen woo kenn du ñëw ma ne ko li ma am soxla rek ba soxla ci mooy deuxièmement nañu wootee rek bu ñu wootee ci benn meeting après par la suite le reste on va le dina am ñu ñëw dana am ñu ñëw mais au moins dinañ mën a créer benn structure de cadres. Mm-hmm. mu nekk un plus boo xamante dina la mën a jegeel pouvoir bi. loolu nag bi ñu ko defee cadre yu bari. Euh, ñëwuñu mais sëgëm man j'étais euh, à la direction des travaux publics jóge France am sama troisième cycle en logistique et transport multimodal donc euh, mu nekk loo xamante ne nii vraiment dama koy saluer parce que li tax ma duggoon ci PDS dama xalaatoon ni tali yeeg infrastructure yu bari buñ koy def dañ koy jox ñoo xam ne am nañ compétence bi mm. compétence boobu amuñu ko nag saa yu ñu demee Euh, bu ñu liggéeyee dara bu nawet ba dellusee mu mel ni Sénégal kenn mësu fi def dara loolu nag énervé ma parce que du ma bàyyi sama avantage yi ma amoon France yëpp ñëw Sénégal ni damay liggéey si di gis situation bu mel noonu ma gis nag Abdoulaye Wade ne ko man daal xam naa ni programme yi ma gis yëpp yow yaa ci gën a kii euh, yaa ci gën a taxaw léegi man mën naa ñëw ànd ak yow mais à condition bés boo jëlee pouvoir lii nga xam ne dama la koy présenter comme projet. mën nga ko dugal fu nekk parce que travaux publics laa nekk et tout. ñu xool ndax dañ ko mu ne ma bu fekkee nangu nga xeex man ñu ànd comme ça bu ñu kiiwee rek automatiquement man dinaa def programme bi moo tax Abdoulaye di mu gën a réussir bi mu ñëwee. Mm. mooy affaire tali yi infrastructure sa sa ànd ak Abdoulaye Wade am na encouragement peut-être bu mu provoqué woon si yeneen cadre yi. absolument mm. ci la Macky Sall ñëwee. Macky Sall nag bi muy ñëw il était un peu plus jeune que ça. bi mu ñëwee ma ne ko waaw euh, léegi Abdoulaye Wade ne ma am na yaa euh, sàkku sa suñu kii bi campagne bi woo cadre mu ngi commencé kii parce que y' a un jeune qui est arrivé. Mm-hmm. mu nekk loo xamante ne ni euh, lu lu lu lu am solo la. Mm-hmm. mu laaj ne ma abon ah bon est-ce que dinañ dinañ dinañ nangu suivre ma ne ko ah, am na benn jeune boo xamante ni daal mu ngi tudd Macky amagul nag diplôme am yi mais je pense que ni mu ne ma euh, nag bu ñuul boo ci amee soow mu weex taal da ngay daw ba fattu <laughs> sëgam cadre yi ñu ñëw te moom ñëw na kon nañ ko nañ ko dugal noonu lañ ko accepté. kon moom mbokk na ci cadre yi njëkk a ñëw. waaw njëkk a wuy si jeune cadre au moins njëkk a njëkk a ñëw ñu organiser ko. léegi nag loolu ñu topp ci 93 Boubacar Sall nekkoon un homme très fort dans le PDS. génn àddina ma remplacé ko comme député. bon ñu nekk ci loolu organiser wu di liggéey ba Ablaye Wade ni mu duggee ak euh, dans un premier temps moo ko euh, Diouf ci gouvernement élargi parce que sur le plan international dañ ko ko dañ ko ko imposer. Mm. ne ko ku moom il faut que ngeen au moins bokk li nga xamante ne nii yow tu as à près cinq pour cent moom il a quarante cinq pour cent. Mm. na ku ci nekk. am loo xamante da koy service dëkk bi comme ça ñu on aura la paix mm. au niveau de l' Afrique de la sous-région mm. mu daal ne ah bu dee loolu la kon y' a pas de problème ñëw nag ne nu cadre yi ñun dañuy dugg ñii bañ ñii d' accord mu ma théoriser loolu mm. parce que ne leen prochaine élection présidentielle yi bu ñu demee au moins dinañu am une certaine expertise loolu moo tax ñu ñu préparer woon ko depuis 93 ñu koy préparé 98 ñëw mu am nag situation bu xaw a compliqué mm. parce que xam nga le PS à l'époque da daan retirer ñiy jël ñii et tout cela mm. mu amoon nag benn benn benn ñuy renouveler assemblée nationale investiture ya ñu defoon mm. poser de sérieux problème ci naka ci le fait que euh, sa Seck bi mu ñëwee Aminata Tall nekk fa ku ci nekk dafa jël une bonne partie ci la Aminata Tall daal ne bon nañ dugal marabu yi surtout waa laayeen yeeg yooyu mm. euh, Idrissa Seck moom it daal dina moom tamit ay nitam la ñuy jël à tel que ñi nga xamante ne nii ils étaient des pro euh, comment dire Ousmane Ngom euh, gisuñ ci seen bopp mm. loolu nag moo indi woon clash bu méttee métti ñu nekkoon bokk léegi ñun si c'est comme ça on va se retirer en 98 mm. mu nekk nag situation bu compliquée parce que deux ans après ci la Ablaye Wade dem élection gagné mm, parce que en fin de compte peuple bi gëmoon nañ ko mm. ainsi de suite et tout mais Ablaye Wade son problème moo doon bon jël na pouvoir bi mais ñi nga xamante ne nii ñoo ko gënoon a sës ku mel ni Ousmane Ngom mm. bokk ci et tout ça qu'est-ce qu'il faut faire bon ci laa ne woon euh, à ak euh, Ablaye Wade mais ce qu'il faut faire mooy Ablaye Wade personnellement il m'a appelé nee na ma yow yaa doon gérer cadre yi et tout tu ne peux pas continuer sa mer bi ñëwal ñu xeex xool nag li ñuy jëlee euh, pouvoir bi. ma dem ci ñoom Ousmane Ngom ne leen bon xuloo day jeex sëgëm xuloo nañu ba toll ba fii te léegi ñu ngi jëm ci élection yi. léegi te dem nañu ba léegi am na deuxième tour. kon boog il faut que ñu dem. alors ah, si deuxième tour bi la. deuxième tour ñu bari nag bañ. Mm. ñii dinañu dem et tout ça man leen bu ngeen demul man dem na ci la ñu demee ba en fin de compte yàlla def. Mm. ñu gagné élection yi kon boog ça situation très très bi ñu demee ba gagné élection yi bon mu formé ay gouvernement mm. à l'époque bon jëlul woon ci cadre yi ñu bari am na ñu bari ñu mu jëloon Macky Sall mercredi et tout ça man ma tapé sur la table ne leen dañu war a évoluer ci la ma nommé comme directeur général du conseil sénégalais des chargeurs mm. Macky Sall mu yóbbu ko Petrosen c' est comme ça que ça s' est passé. ba mu duggee Petrosen nag man tamit ma nekk euh, ci cadre yi euh, ma nekk euh, au COSEC sama domaine la woon donc j' étais vraiment à l'aise ñuy évoluer dans ce contexte là. léegi donc c' est vrai bi ñu jëlee pouvoir bi au départ. Mm. heureusement en 93 duggoon nañu. ba xam yëfu ni muy doxee xam nu état di doxee. Mm. ça nous a permis beaucoup faciliter les choses. tractation yi ci deuxième tour bi naka la demee woon. bon tractation ci deuxième tour bi mu ngi nekk euh, euh, première alternance euh, deuxième tour bu kii bi nga wax. deuxième tour bu présidentiel bu 2000. voilà tractation bi en fin de compte bi nga xamante ni ne ni Ablaye di ñëw na au pouvoir bon amoon na ñu bari ñoo xamante ne nii xamuñu leen woon sax. Mm. lay Wade a porté son choix su des gens. yoo xamante ni on les maîtrisait pas et kooku ça créé. mais ñooñu dañ ko jàppale woon ko mel ni Moustapha Niass. waaw dañ ko dañ ko jàppale dañu jàppoon ci ci deuxième tour bi. waaw mais étant donné que dañu yàgg combattre. xeex ak ñun. ay noonu démb lañ. waaye adversaire yi démb. yóbbu ñu prison et bu leen Ablaye Wade di jëlee approché euh, rapproché leen ci yëf yi. Mm. <clears throat> ñoom c'est bokk nañ ci yëf yi mais wu ñu li nga xamante au départ xeex bi ñu xeex. ñoom bokkuñu ci li yóbbuwaat deuxième tour. voilà bokkuñu ci. léegi nag loolu mooy loolu mooy situation bi. dafa indi woon ay frustration ay frustration yu métti. donc il fallait que en tant que cadre ma gérer situation boobu et puis ma ne Ousmane Ngom léegi effectivement dem ci Ablaye Wade ne ko bon léegi c'est vrai jël nga présidence bi ñu doon xeex ak xeex ànd ak nekkuñu fi. Mm. te il y deux choses le fait nga xeex ba jël pouvoir bi. mais xeex ba gérer pouvoir bi. kooku beneen affaire la. Mm. te pour nga gérer ko il faut nga am ay nit yoo xam ne am nga. xam ne ay tout ça. Mourad ma tu as parfaitement raison mu ne ma kon bokk fait le nécessaire pour essayer de rapprocher les Ousmane Ngom. Mm. donc euh, il y avait Idrissa Seck qui était très puissant. Mm. et tout ça donc euh, Aminata Tall non ils pas tellement d'accord. mais xam nga Wade moom dafa nekk koo xamante ne nii. Euh, bu xamee dëgg moom kenn du ko téye. Hmm. noonu la ñu def ba après Ousmane Ngom ñëw ñu rapproché wu et tout cela mën na nag former un gouvernement. ñu engagé nag euh, tous les tous les tous les mu ne ma léegi bon qu'est-ce qu'il faut faire. ma ne que bon man je pense que ni am naa poste boo xamante ne nii y a beaucoup de choses à faire. Hmm. mais les autres aussi bu ñëwee ku ci nekk am na ci loo xamante da nga koy jël sa programme nag. Hmm. il faut que nga ñu xool nag lañ koy bon mu xamal ma nag aussi ne ma xam nga booy xeex bëgg a pouvoir euh, dafa am ay idées yu claires. Hmm. mais une fois nga jël pouvoir bi. waaw ah, réalité bi leneen lay réalité bi beneen <laughs> comment il faut se machiner. Hmm. ma ne ah, ñun de on fait confiance. mais ku ci nekk ci domaine am sa domaine yu ay géré yëpp le problème ne se pose pas. ci la deme nag euh, jël ay des hauts cadres et tout cela mais politiquement son parti avait vraiment. Euh, se sentait plus ou moins délaissé. Mmh. Mais étant donné qu'Abdoulaye Wade est très fort, il a réussi à rallier tout le monde. Hmm. parce que au moins moom bi mu ñëwee euh, même bu fekkee jëlu woon et tout ça ku nekk gis na ci sa bopp. Hmm. loolu moo ko permettre mu. mu nekk un président boo xamante ne nii très social. Hmm. ah euh, ancien yi mu amoon ñi nga xamante ni jànguñu woon et tout donc ñoom ñëpp euh, am na fu mu leen féete. ba finalement ñoom ñëpp trouvé nañ ci seen compte quoi. d'accord alors est-ce que financièrement bi ngeen ñëwee 2000 da fi fekkoon ay jafe-jafe. Euh, Abdoulaye Wade nous avait bien dit que bi mu ñëwee daal fekk na fi xaalis comme par exemple caisse noire ba nekkoon présidence et tout. Euh, bi ko ko Abdou Diouf ubbilee et tout ça donc ils étaient étonnés parce que ñu mosuñu jëf xaalis bu bare noonu. kooku moom c'est une réalité boo xamante ne nii mën naa ko justifier. Mm. en de compte nag. kooku moom mooy caisse noire bi mais quant à la situation économique du pays, mm, mm, mm. je pense qu'il y avait beaucoup de choses yoo xamante ni waroon nañ ko redresser okay. c'est sur la base de ça que Ablaye Wade compte de son envergure et puis am ay nit on a bénéficié de pas mal de euh, d'avantages avec la Banque mondiale et tout ça les autres pays qui nous ont aidés ba ñu mën a évoluer caisse noire ba xamoo ñaata fa ne woon caisse noire ba à l'époque euh, je pense que tey jii à peu près onze milliards la woon tey jii euh, d'après les informations que j'ai bon caisse noire Abdou Diouf defe naa ça faisait un milliard et quelque à l'époque mmh. mais je pense qu'on avait trouvé suffisamment d'argent xam nga ku nekkoon opposition mosul gis milliard. <laughs> mu gisee milliard day bari si moom lool. bari si moom hmm. léegi naka ngeen gérer ak euh, aussi alliés yi nga xam ne ñoo leen gunge woon ci deuxième tour bi parce que visiblement lay Wade euh, buggul woon décevoir leen. Mhm. moo tax ba mu faloo it ñoom ñëpp. Euh, gis nañ seen bopp Moustapha Niasse nekk. nekk premier ministre mais par la suite tamit am na ay cassures lan moo xew. voilà c'est-à-dire Ablaye Wade mu ñëwee. étant donné que opposition bi dafa bëri woon ay communiste bari ci ay trotskiste parti socialiste et tout cela léegi nag Ablaye Wade woo leen ne leen c'est vrai vous avez jàpp ngeen mais man j'ai un programme libéral programme boobu nag lay doxal bon après nag plus ou moins ñoom euh, projet boo indi rek ñoom dañuy indi la vision communiste ou bien mm-hmm. la vision socialiste Abdoulaye Wade rek ne leen. kon loolu mooy mooy mooy moo indi wuute bi seen diggante. loolu moo indi woon différence bi. c'est-à-dire l'application du programme. Mm. parce que ñoom jàppale nañ ko mais defuñu woon un programme commun. programme commun boobu nag c'est comme defuñu ko woon léegi rek mu indi ay difficultés mm. pour application ceci ou cela okay. bon pour ñu ne par exemple l'école il faudrait tenir compte de cela ñoom ils ont une autre vision donc mu indi ay xuloo yu dul jeex. Abdoulaye wane ne moom mooy président. mooy président de la république nag qui s'est débarrassé du moins euh, techniquement avec euh, les Moustapha Niasse et ñoom Dansokho ñoom ñëpp daal mu mu xool nag lay doxalee ak moom wane nag mooy président de la république. Mm -hmm. après doxal ngeen affaire waaw ñun euh, bi ñu ñëwee bon qu'est-ce qui s'est passé mu daal ne ma bon cher man sur le plan euh, des infrastructures on avait déjà une idée très claire. et tout ça parce que léegi gens des travaux publics ils nous ont liggéey ngeen ci et léegi nag on va essayer de voir bon ci laa ko ne nag man actuellement je pense que la première chose sur le plan infrastructure il faut que nous désenclaver Dakar parce que Dakar tey jii mooy poumon économique du Sénégal mais la concentration est telle que te presqu'île la ñu nekk donc il faut impérativement ñu jéem xool léegi mu daal ne ko naka la ñuy def ma ne ko bon dans un premier temps il faut que ñu ñu utiliser les trois axes yi alimenter Dakar il y route il chemin de fer il y mu mm. ne mer bi loo ci bëgg a def ma ne que des bateaux taxis mm. des bateaux taxis yoo xam ne dañ koy utiliser muy jóge comment dirais-je képp ku bëgg génn mm. bàyyi sa oto ay Rufisque yooyu bateau taxi yi acheminé la deuxièmement mu am terre de train bleu bi ñuy wax mm-hmm. ñu gën ko aménager mais aménagement boobu ñu koy def day nekk train boo xamante ne nii dakaar lay jëlee source mais dañ koy essaimer à travers ko tout le Sénégal. Mm. mais nag train bleu bi mooy commencer à partir de de de Rufisque ou bien un peu plus sax sax Diamniadio di desservir Dakar. Mm. moom la Macky Sall li jël. mooy terre bi mooy terre bi à l'heure actuelle <laughs> loolu mooy schéma bi donc on a on a fait ça sur le plan. bon éducation nationale également il a fait des choses quand même euh, euh, je ne suis pas spécialiste de l'éducation mais je sais que également enseignants yeeg yëpp daal gisoon nañ ci seen bopp il y avait moyen de grève et tout s'est très bien passé alors euh, ci wàllu politique naka ngeen dundee woon peut-être euh, gestion bu bees boobu xëy na am na ñu duggoon ci gouvernement élargi bi ak Ablaye Wade am tuuti expérience mais est-ce que amul woon ay quoi quand même ci gestion si si si yenn niveau yi ndaxte du ñëpp ñoo amoon quand même euh, expérience étatique. waaw c'est vrai en fin de compte bi moom mënul sori. Mm. parce que Ablaye Wade day am idée très claire ngeen discuter ci mu ne lii dañuy appliquer. que muy nee wala nii automatiquement moom c'est comme ça le problème du fi nekk naan xam naa ni comment dirais-je conseil des ministres et tout ku nekk de indi nii laa ko gisee nii laa ko gisee mais mm. la décision finale c'est Ablaye Wade mm. dina am ñu kontaan ak ñu kontaanul bon par exemple le projet de l'autoroute bi nga xamante nii wax na ma ma ne ko deux choses la war a def un il faudrait que ñu jéem a xool nag la ñuy euh, trouver un aéroport boo xamante ne nii c'est un aéroport très moderne. Mm. compte tenu la l'affluence ak la position du Sénégal. Mm. léegi aéroport bii nga xamante moo nekk Yoff ñu def ko aéroport de dégagement. Mm. parce que aujourd'hui benn aéroport lañu am bu fekkee aéroport boobu am na difficulté. Mm-hmm. dañuy dem Gambie wala Mauritanie léegi nag il nous faut un aéroport de dégagement. mu ne ma c'est une idée. ne ma nag il faut essayer de trouver le terrain ñuy wër am na toolam yu nekkoon fële xaw Sangalkam ñàkk yooyu. ñu ne dañ ko fay def ba finalement daal ñu trouver terrain boo xamante ne nii mooy actuel aéroport. Diass waaw. léegi nag Diass nag avantage bi mooy un autoroute bi dañ ko war a def. boo xam ne da koy desservir comme ça dina désenclaver Dakar en même temps moom la Macky Sall bi mu ñëwee. Mm-hmm. moom la def terre. mais daf ko yemale tout simplement Rufisque yóbbu ko ba aéroport bi. donc mais projet bi dafay continuer. Hmm. mais projet bi li ci rax di tax mu xaw nu gêner un peu mooy bu ñu defee suñu investigation à travers l'Afrique ñu jël par exemple le Maroc. Maroc am na am na terre boo xamante ne nii euh, ça fait plus de cent et quelques kilomètres. Hmm. te kooku ça a coûté sept cent milliards. Hmm. mais ñun Sénégal. Euh, terre boo xamante ni ça à peu près trente ñu dépassé ci mille cinq cent milliards ça a été un problème au niveau de l'Assemblée nationale les opposants tapé ci ñu ne y a quelque chose qui ne colle pas mm. ñu jël aéroport bi également bi ñu koy def c'était très intéressant bi Ablaye Wade demee Macky la a jugé nécessaire ñu aménager ko terminer ko mais le coût bi ñu ci def dafa dafa bari ba tey ji sax le stade que bi mu tuddee Abdoulaye Wade xoolal stade bi amul terrain boo xamante ne nii pour l'athlétisme on a dépensé plus de cent cinquante milliards te même terrain bi Cameroun def na ko Côte d'Ivoire def ko ils ont dépensé cinquante milliards. noo bëgg a wax foofu. li ma bëgg a wax foofu mooy dafa am ay surcoût yoo xam ne dañ ko branché ci ci ci kii bi ci projet yi. à tel que ça nous a vraiment posé de sérieux problèmes. maanaam da ngeen njortu ne dañ cee lubal alalu réew. kooku moom c'est clair net et précis. Mm. parce que je peux en parler parce que à l'époque dañu amoon ay fonds routiers. Mm. fonds routiers yooyu avec le parti socialiste mais fonds routiers yooyu ça des milliards hein personne ne l'utilisait dañ koy dugal ci politique bi ainsi moo tax situation tali yi yàqu dégradé et tout cela. Mm. bi Ablaye Wade ñëwee fonds routier boobu daf ko multiplier par dix moo taxoon ñu mënoon def nag euh, am ay tali yu bees de Dakar yëpp ñu gas ñu naan Ablaye Wade lu muy def nii këru kañalaat yooyu yooyu mais on s'est rendu compte que euh, par exemple euh, boo gisee VDN bi moom son problème moo doon non seulement autoroute bi dañ koy def mais dañuy def prolongement également VDN bi bon ma ne ko nag VDN bi <coughs> buñ ko prolongé mais il y avait des problèmes au niveau de jàmmalaay. Mm-hmm. mais kooku bu ñu ko defee ba pare mu ne ma ah ma ne ko ñu continuer ko ba Rufisque mais on a plus besoin de créer benn autoroute buy jóge fii <coughs> di dem ba Saint-Louis. Mm-hmm. parce que bee dina nekk en même temps corniche bi lay nekk. Mm-hmm. te en même temps dina permettre Sénégalais yi di mën a déplacer wu te day désenclaver pas mal de choses. loolu moo doon schéma bi. donc euh, mu daal ne bon le le problème ne se pose pas. on va essayer donc ce projet la euh, Macky bi mu ñëwee def ko terminer mais prolongement VDN xaw ma ndax jaar nga fa ou pas. Mhm. jaar naa fa barke démb mais je me suis dit que ni c'est c'est un excellent projet. Mhm. donc loolu mooy li nga xamante ni daal c'est quelque chose de positif parce que quand boo nekkee ci dëkk. Mhm. bon le train bleu bi nga xamante bëggoon ko def Macky Sall génne ko. daal di def euh, comment dire la terre aéroport bi. gis nga dañ ko waroon desservir léegi nag il est d' accord pour que ñu ñu ñu ñu aménager ko donc yooyu yëpp c' est des visions yoo xamante ni de lay Wade mu nekk des des des projets extraordinaires mm. de l' autre côté également sëgëm Dakar était avait des problèmes d' eau pour desservir et tout bon ñu ne woon au niveau des <coughs> des mamelles et tout ñu defar dafa ay usine pour euh, géej géej yooyu ñu mën ko désaliniser et tout bon déggoon na projet boobu ba finalement je pense que bi bi kii nu mu tuddati Aliou Sall nekkee nekkee yore notre argent là. CDC. mu ngoog CDC. ils avaient inauguré comment dirais-je euh, les usines là mais jusqu'à présent on n'a pas vu fu yooyu donc voilà les une situation un peu hmm. compliquée boo xamante ne nii le Sénégal pouvait en bénéficier. bon léegi Lac de Guiers bi di ko jëlee ay je ne sais pas combien de kilomètres. Mm. te ya a également Touba qui demande léegi moom it moom Lac de Guiers. Mm-hmm. nous avons des vallées fossiles et tout ce qui s'ensuit mais vous savez que loolu bu ñu ko defee day dessécher le fleuve Sénégal te Mauritaniens yi bëgguñu ko. Mm. mu naroon indi le conflit. surtout que ndox fi mu ne dafa am enjeu lool ñu ngi ci forum mondial de l'eau. wane na solo bi nga xam ne ndox am na ko ak peut-être risque de conflit. yi am yépp ci ci wàllu ndox mi. alors ñu avancé tuuti nag wax ci deuxième alternance Macky Sall déjà yow introduire nga loolu parce que mi ngi yeggali ay projet yu bari yoo xam ni président Ablaye Wade moo ko xalaatoon ba tàmbali ko lu mel ni aéroport bi euh, Macky Sall moomu séentu woon ngeen. Euh, ci benn jamono ne moom mooy wutu président Wade wala lu leen bett la carrément. lu ñu bett la. man daal mbiru yàlla. c'est extraordinaire. man maa doon seefam maa doon seefam ci ci ci ci ci parti bi. bi muy ñëw bëgg duggu dugg PDS man maa ne Ablaye Wade kii amagul diplôme mu laaj ne ma non non nañ ko jël sëgam mën nañ ko assimiler comme cadre rek sëgam mu ngi def diplôme am te pare gu ko léegi bu ko paree rek automatiquement mën nga ko intégrer et tout ça ku mel noonu. nga jékki-jékki xëy suba président ba fi nekkoon mu jël remplacer ko mais yow personne na comprend rien. Mm. bon ci la ñu xamee ni nag mbiru yàlla moom pare na démb. yàlla nag kaawu Macky Sall bi dafa gën a dëgëral suñu gëm gëm boo xam ne ñun ñëpp gëm nañu parce que mm. juddoo sa papa nekk jullit sa yaay nekk jullit mm. et tout ça mënoo nekk lu dul jullit. Mm-hmm. mais nag am na niveau boo xamante ne nii. kaawu Macky Sall dafa nekk loo xamante ni. preuve la woon daal ci li yàlla wax ne moom mooy dogal. Euh, parcours président Macky Sall ci parti démocratique sénégalais boo ñu ko doon résumer rek. pour ñu yegg ci élection boobu. bon parcours Macky Sall ni mu demee mooy bi nga te ni ñëw na dugg ci euh, coordination des cadres du PDS Fatick la dëkk ñu daal nekkoon nañ ko bàyyi mu nekk Fatick moom it dafa xeex. Hmm. bon man étant donné que j'ai une bonne famille boo xamante ne ay lébu lañu Dakar donc ma nekk fi bon Macky Sall nag bi mu ñëwee euh, en fin de compte bi euh, compliquée un peu tu vous comprenez bon euh, je ne sais pas mbiru yàlla daal kenn xamul nu mu koy dugal. ba tàmbalee réeroo ñoom. fekk peut-être waat euh, jot na ko dénk ay responsabilités. ay mu jékki-jékki euh, nekk ci ci situation boo xamante ne nii nekk fi directeur u Petrosen maak moom dañ falandoo mm. après par la suite yóbbu ko ministre xawma de l'éducation mu jege ko waa intérieur yóbbu ko intérieur waxatuñu loolu mu jékki-jékki tel rek euh, nu mu traité au niveau assemblée premier ministre ba mu nekkee premier ministre man j'étais son conseil spécial mais qui pouvait accepter que ni Macky Sall mi na nekk euh, premier ministre <laughs> yow nga nekk son conseil spécial mais ñu ne mbiru yàlla la rek yàlla na yëpp dox parce que ku ci nekk yàlla bind na sa destin et mm. ainsi de suite et tout cela bon daf may fàttali benn anecdote parce que dañu doon def sport ci corniche bi mm-hmm. ñuy jékki-jékki di daw ba càgg ñu daal ne ma Cheikh am na benn paa bu mën a gis ëllëg quoi mm-hmm. <coughs> man leen pour lan la yaabe Macky yaa ndeysaan euh, Ousmane ma Ndiaye qui était à la poste moo ko présenté woon mm-hmm. yaabe Macky Sall et tout ça mu ñëw xool no tout ça mu ne mën naa leen xool seen avenir de mu ñëw xool sama bos ne ma yow vraiment dina baax doo am benn problème waaye yëngu-yëngu yii ni moom xam naa ni ay prison yooyu di di nga ci dem ba si hmm? dellusiwaat ma ne ko ah mu ne ma waaw. mu daal di xool Ousmane Masseck Ndiaye mu ne ma ah kii nag moom euh, affaire am baax na yàlla may na ko wërsëg mais wërsëg bi dafa teel ñëw. Hmm. mais bu deful attention moom du ko fekkee. ma ne ko nga ne lan. boobu mi ngi dégg moom. mu ngi dégg. Ah Macky Sall nag mu xool lox bi daal laa ilaaha illallaah kii de moom <laughs> réew mi yëpp dina ko moom. ñu foog ni dafa màndi wala dafa dof foofu yegg anecdote ci corniche bi ngeen ko fekk ko ci corniche bi ñu nekk di daw mu ñëw di nu seetaan. Mhm. mu gis daal ne naka la gis loxo Macky Sall ne ma laa ilaaha illallaah kii moom. Mhm. Euh, am na fu mu commencé kenn xam kii yàlla pare na ci moom. kii kilifa bu mag lay nekk. ñun ñu pour ñun ñu teg ko dof. te booba Macky lan la woon. Macky Sall euh, nu mu tuddati ma nga woon pétro kii euh, kii la woon nu mu tuddati euh, ñu ngi ko doon door a embauché Petrosen. Mm. boobu nekkul woon sax directeur bi. Ah, ah oui Macky ñu xamante yàgg na. Mm-hmm. Macky Sall takkam yeeg seeyam yeeg yëpp ñu ñoo ko li d'accord ah oui ak Marème. ak Marème et tout ça. Mm-hmm. fii la daan ñëw. amul xaalis et tout ma jabar may ko deux mille cinq cent tout ñu doonu dañuy yàgg. loolu mooy àddina. loolu àddina léegi nag kooku xëy suba ni cëpp cëppale lay nekk président. Mm. mais saa yu yow sa xel mës ta dellu ca la leen waaj a waxoon. sama xel def ci dem parce que dama tëdd ba guddi di xalaataat yëf yi daal ni waaw parce que am na benn jour ma ñëw. ne Ablaye Wade waaw pourquoi yow ngay nommé ay ministre ak ay yooyu yooyu yëpp ñun ñi nga xam ñu fi nekkoon di xeex ak yooyu yow defoo ñu mu ne c'est parce que vous ne voulez pas franchir le Rubicon man j'ai rien compris. Mmh. franchir le Rubicon man j'ai pas compris j'ai essayé de comprendre lui franchir le Rubicon mais j'ai pas compris. mais après la comprendre luy le boobu. ak lan la Wade bëggoon wax foofu loolu nag mënuma wax. Ah. <laughs> waaw nangul nañ <laughs> loolu nag mënuma ko parce que la comprendre daal. Mm-hmm. Rubicon boobu daal am na lu bari lu ci laxasu. foofu nag laa comprendre. Mm. ne yow di nga jël réew. mais y a beaucoup de lobby qui t'entoure. Mm. yooyu nag. boo ci nekkul wala quelque chose comme ça tu as aucune chance de de réussir parce que àddina bi dafa doy waar donc je ne sais pas mënuma sori daal non non nañ may may nañ la loolu aussi <laughs> alors mhm. président Macky Sall euh, tooguloo tam benn moment nga gis peut-être ci jamono yi jafe-jafe yi bi ko PDS di di bunduxataal loolu yëpp fii la fekk ñu bari euh, PDS fi mu ko dañ ko bunduxataal waaw fi mu bunduxataal mooy deux mille deux mille sept defe moo amoon ay élections hmm. moom mu def campagne électorale. moo nekkoon directeur de campagne. directeur de campagne gagné élection ba pare. Mm. waa di jël ko yóbbu ko. assemblée nationale loolu tamit ça m'a étonné léegi ba ñu ko jëlee nag muy dem assemblée nationale te ñun c'était son conseil spécial mu ñëw woo ñëw ne moom maa ngi dem assemblée nationale. léegi donc qu'est-ce qu'il faut faire mu daal di ne bon je vais essayer parce que assemblée amul ay député amul ki ay conseil amul poste yu bari. Mm. donc je ne pourrai pas amener tout le monde. Mm. bon ma ne ko bon d' accord toog di xaar ba liste ba génnee am na ay conseillers yu bari mu jël leen bon ñun mu mettre nous en kii quoi en jëluñu. Mm. et tout ça mais man comme j'étais fonctionnaire. bon j'ai tout simplement demandé à la fonction publique de retourner mm. euh, comme fonctionnaire mu mm. ce comme spécialiste de kii ñu ne woo kon yow bind benn lettre boobu euh, Souleymane Ndéné Ndiaye moo fa nekkoon mm. ñu ne woo léegi da dem nekk comment dirais-je euh, dellu économie maritime. à ma grande surprise euh, Ousmane Souleymane Ndéné Ndiaye daal ne tout le monde sauf Cheikh Touré. Hmm. waaw il n'a pas voulu que ma intégrer. primature xanaa dafa am lu jiitu seen diggante. bon xam nga en fin de compte dama ko naroon de gérer parce que su ko man dama daan wax di joxe ay idées techniques te c'est ma spécialité. Hmm. mais bés bu conférence am quelque chose comme ça bés ma génne su waxee dañ naan waaw kii lu mu fi doon def kii nga xamante ne nii vous comprenez. Mm-hmm. yooyu peut-être la doon daw. Mm-hmm. bon man j'ai compris après ma daal ne bon sëgëm noonu la ma delluwaat fonction publique bi ma demee fonction publique après fonction quelque temps après. Ablaye Wade a appris waaw quelque après fonction bi ma delluwaatee primature. Mm. Euh, Hadjibou Soumaré moom it daal di ne chef du ma ko jël. Hmm. waaw moom it il m'a automatiquement rejeté. kooku nag ça frustré quelque cas ñu dem wax ko waat Wade Ablaye Wade daal ne mais comment se fait-il que ñoom Macky Sall yóbbu ko assemblée nationale te ajibu Soumaré kii wu ko daal di ma woo ma ñëw mu laa ne ma bul wax dara je vais te mettre comme conseiller. comment dirais-je à mes côtés ma nekk pas conseiller man conseiller spécial laa nekkoon ci Macky léegi tu ma mets ministre conseiller mu ne ma bon y a pas de problème dans un premier temps on a qu'à tu la présidence mm. et puis on voir ça ma grande surprise mu am benn réunion au niveau de la primature ma xëy suba je représente la présidence dem présidence mm-hmm. ba ma demee ma dem ci réunion du moins primature ma dem ci te Hadjibou Soumaré fa nekk ñu ñëw dugg si gis ma ma toog sëñ fa laa nekkoon mu ne il n'a pas besoin de mu xëy suba gis ma ma toog ci réunion mu laa di dem daal di woo ay conseil mu ne kii lu mu fi wut dina ah ñu de on comprend pas mu ne kii bokkutul primature qu'est-ce qu'il fait là ah ñu commencé daal nekkoon on donne la parole à chacun mu kii bi ñu àgsee ci man ma ne leen bon moi je suis conseil je suis conseil spécial du président de la république je à la présidence de la république mu ne mu jommi parce que ci man te ma kii teg na ma fële après dégg naa na mu xuloo gaayam yi nga yéen a tax ma kii ko et tout maintenant le président l'a pris léegi il est au-dessus de nous donc loolu mooy kii quoi d'accord looloo loolooy histoire mais mais Macky Sall en fin de compte bi mu nekkee primature bi mu nekkee assemblée nationale sama euh, je n'avais pas compris muy mëne assemblée. yow daf la bett le fait que mu jugee. Euh, euh, premier ministre dem pour yow dafa dafa. dafa dafa dafa wàcc ou bien am na lu xewul. Ah, lu xewul digganteem ak président Wade. waaw hmm. ci laa toogee ba ci yàgg di réfléchir mu am ku ñëw daal ne ma euh, Cheikh mu ne ma ah mu ne ma daal dama bëggoon nga ñëw rejoindre groupe bi quoi mën ne ban groupe mu ne ma groupe bu Macky Sall. ca assemblée ah bon de te assemblée groupe bi nañ ko ki nañ ko nañ ko kii ma ne ko ban groupe. mu ne ma ah non mais xam nga président Wade fi mu jëm ak Macky day la waat dafay dàqam. Hmm? bu ko dàqee nag y a des gens nga xamante ne nii da ngeen am fit te nekkoon ngeen coordination ngeen ñëw ñu bokk affaire bokk gouvernement. ah groupe xaritam daal yu koy jàppale. waaw ñu koy jàppale ma ne leen nag ma njëkkoon naa xuloo ab Abdoulaye Wade situation am na. te maa ngeeg moom ma delluwaat naan damay jàppale Macky day poser problème bàyyi leen rek ma continuer comme ça te ndeysaan ki ñu ko doon wax sax ak ki ko bëggoon yàlla moom na ko léegi génn na àddina muy ABC suñu xarit la woon. ndeysaan Alioune Badara Cissé. équipe bu équipe bu solo la woon. Mm-hmm. bon ñu dem après par la suite ah ma laa di ne ñu jékki-jékki <coughs> Macky Sall dina am ay problème mm-hmm. problème yi bi mu amee ndekete. dañu bind benn lettre Ablaye Wade. ne dañuy auditer. Karim Wade. ma ne waaw naka la koy auditer et tout ça ndekete c'était même pas moo ko defoon y avait Iba Der Thiam et Mamadou Seck. Hmm. Iba Der bind lettre bi Mamadou Seck également ñu jël lettre boobu nag jox ko Macky Sall su ko Macky ne lii pas mu jël rek si signé. Hmm. lettre ba dem ci Ablaye Wade ba mu demee ñu woo ko ne yow. koy auditer et tout moom il ne comprenait même pas ce qui se passe voilà comment rôle ko bi am mooy vrai problème bi te le problème mu Ablaye Wade nag commencé ak Macky Sall ba finalement. Macky Sall mais waral mu jëlee ko primature indi ko assemblée problème la woon itam. waaw man loolu man j'ai pas compris. Mm, ba léegi nii waaw parce que étant donné que si bokk na comprendre naa. Mm. parce que en fin de compte Ablaye Wade euh, da doon préparé pour doom ji. mais un Macky Sall étant donné que def na jóge na ci directeur général ba ak fii c'est un candidat boo xamante ni ëllëg ak ci biir mën na poser des problèmes te day empêcher Karim Wade fi ko pàpp ji bëgg a yóbbu mu mën dafa dem kon da doon góor tànki Macky pour Karim bien kon bokk pour favoriser son fils mhm. far nag par manque de chance lettre boobu ñëw ñu ne day auditer kii Karim Ablaye Wade daat ne kii sagam day bëgg a kii kañ moom mu ngi si tànku Karim bu bu bu bu bu fégalee Karim kon man y' a pas de problème élection yi sama kaw di jëm. Mm. maître nag mu indil koy problème bi dul jeex nag. Mm. loolu moo doon schéma bi. d'accord ba ab Macky Sall ni mu démissionné. Mm. Euh, ba ñu dem élection mu gagné élection yi. bi mu ko gagné ci passation de service bi. Ablaye Wade ñëw daal di ne eh, kii ci ñun la bokkoon. il y a eu des léegi nag ce qu'on mooy yéen ñëpp aller le soutenir. jàppale ko parce que bu jàllee si les libéraux feront cinquante bu jàllul le problème se pose pas ñun tamit la ñu jàppoon yëpp. ñu bàyyi bala ñuy yegg foofu naka ngeen dundee élection bi dem ngeen deuxième tour ak président Macky Sall naka ngeen ko dundee loolu. mais ni ko dundee. mooy en fin de compte kenn ci ñun. xalaatul woon ni Macky Sall mën nañu gagné. bi jàllee premier tour nag lan ngeen. lan ngeen ba mu jàllee premier tour c' normal. parce que ancien premier ministre président de l' assemblée nationale ak euh, ainsi de suite c' moom tamit. am na parcours daal am na parcours dugg na génn kooku. ñeneen ñi ci des yëpp c' est ou bien des gens kon yéen gardé woon ngeen espoir amoon yaakaar ne président Wade dina gagné waat ci deuxième tour bi. ah oui ah oui ah oui parce que mënoo am. nu mu tuddati li nga jot def Sénégal yëpp parcours bi nga def ak mm. ni la bëggee et tout ça muy perte élection yi. Mm. ndekete problème bi ci nekk dañu ne woon ab euh, Ablaye waat day préparer doom ji. Mm-hmm. bu paree automatiquement day pousse doom ji. mais loolu xel nangu woon na ko ak ticket présidentiel bi ñu bëggoon jàllale 23 juin. waaw loolu nag moo doon schéma bi léegi moo tax ba ñu demee élection malgré ça ñu foogoon ni man. boo ñuy def élection yi ba war a joxe résultat yi sa gouvernement j'étais chargé des élections ma jël sama ordinateur rek yow dem permanence. ah yaa nekkoon chargé des élections booba bu mm-hmm. PDS. waaw d'une manière kii daal. waaw moom passe pas officiel. ok mais yaa doon toppatoo yu bari yu bari parce que yàgg naa ci def. ay 93 ak yëpp man maa génne woon résultat yeeg créer cercle système ordinateur yeeg ñoom mm-hmm. yëpp mu compliqué. d'accord ah yow daal ba ñu commencé di résultat yi di génn. ay huit heures ñoo heures ñu naan kii gañe kii nu fii kii. nga dem permanence. ma dem permanence ba man daal ci la waa ji ñëwee dama waaw Cheikh qu'est-ce que tu fais comme ma ne ko ah dañuy jël résultat yi mu ne ma yow te ngaa jóg <laughs> ma ne lu xew mu ne ma yow Ablaye Wade a perdu ma ne ko kan ma ne ko kan mu ne ma Macky Sall di jël na élection yi. d'après résultat yi génn fële mu ngi am. xaw ma ñaata. si wax loolu kan la euh, parmi les les les responsables. Okay. mais kooku nag defe naa il était très lié ay à la police ou bien des trucs comme ça. d'accord am na yeneen euh, responsable yu fa ñëwoon yu fa daje. wala ku ne këram la toog. déedéet euh, man bi ma ñëwee di organiser loolu d'ailleurs li ma jëkk a jaaxal salle bi nga xam dañ ko commandé woon pour que ñu mën fa traité. pour fêter seen victoire Mbado. <laughs> <laughs> man daal ba ma ñëwee man rek fa ne. ngëri. ak ma dem si yàlla bi Ablaye. waa defoo leen ci woon lu bari ci décoration ak ñoom seen. mbetteel na <laughs> ni mu ñu dalee man c'est la première fois parce que man euh, même bu ñu bu ñu gañee moo dama naan dañ ko sàcc dañu lii am naa kii. pour yow daal dina xaw a takk suuf tuuti. waaye un Macky Sall boo xawee nekkoon ci ñoon man nekkoon patron et mu ñëw nar a jàll ma ne mais c'est pas possible ñun ñëpp ñu jaaxle. Hmm? léegi nag gaa yi ne ma daal Cheikh sa ordinateur bi yëpp lem ko. <laughs> nga dellu sa kër parce que kii Ablaye Wade a bi gaw ma ko de. Hmm. ah man sëgam dama dégg ndëgal hmm. ma jël samay bagages ak amoon na benn waay ji ma àndaloon. Hmm. mu ne ma Cheikh maa ngi lay bàyyi yaa dem ba mu demee mu téléphoné bi ne ma Cheikh ma ne ko ah mu ne ma madame a ngi nii négal ma paas la ko mu ne ma yow lu ngeen di def foofu ma ne ko lan yow lu ci sa yoon mu ne ma yéen Macky Sall gagné na leen perte ngeen de ma ne ko yow da nga dof <laughs> sama jabaru benn ah. bëgguma tudd tur mu ne ma ah ma ne ko perte ngeen man daal ci laa jëlee sama bagage téléphoné sama kër. ne ko waaw euh, madame mu ne ma ah mu ne ma ma ne ko waa lu xew foofu mu ne ma fan fii mu ne ma yow Abdoulaye Wade perte na kaay tëdd si ma ne ko ah bon noonu daal laa jëlee sama kii jël sama oto ñëw ndànk ñëpp joom bi ñu toog kenn mënul nelaw. Hmm? kenn mënul comprendre. kon guddi googu nelawu kenn nelawul résultat yi di génn xaw ma nan Tambacounda. yëf yu mel ni bàccum gerte <laughs> kooku yàlla nu yàlla <laughs> yàlla mënul ci loolu ñu jommi complètement hmm? bon léegi nag ba loolu weesoo nga xam ne léegi Macky gagné na Abdoulaye Wade jox nu ay instruction na ñu jàppale Macky fekk Macky mun amoon na yeneen xarit ñu ko doon jàppale mhm. mooy ki ñuy wax naar bi ak yooyu yooyu et ñu daal ne léegi dañ koy jege si gars ñi nag blende nag entourage bi. ñun ñii ñëpp ñu rejeté ñu. ah ma ñëw nag daal di ne bon sëgëm noonu la léegi euh, nañu Macky Sall recevoir ñu bind ko parler de la réunification. de la famille libérale. parce que Macky ñëw na. te bu ñu parler de la réunification de la famille libérale là automatiquement euh, Macky dina dina xoolaat boppam. Mm-hmm. parce que pour ñun il n'avait pas l'expérience ni rien ñu mën ko wër et tout cela mais ñi ko waroon bokk moom élection yi ñoom ñëpp dañu rejeté. ah ñun Malende ñu forcé ba créé lan. cercle des amis. cercle des amis de Macky ah Macky Sall ñëw ànd ak équipe de. Mm-hmm. télévision yeeg ñëpp daal di ne une bonne partie du PDS région donc le coordonnateur des cadres du PDS Cheikh Touré et tout ça man daal ba tey yëf daf ma def gént quoi. Hmm. ñu daal di toog. élection yi commencé ah, euh, euh, kii débat bi commencé. Hmm. après ku nekk wax wax wax. man nag maa ma def erreur bi xam naa li tax ñu ñu ñu gën ma écarté. Hmm. parce que dama ko ne euh, yi mu ne ma am ah, ma ne ko la ma waxoon Abdoulaye Wade lay wax gagné nga élection yi. mais gérer élection yi. gérer réew mi ba réew mi beneen affaire la. il faut nga am ay ñoo xamante ne nii mm-hmm. yàgg ngeen xeex dégg la waaye boo toppee communiste yi. Hmm? trotskiste yi trotskiste en ah, chef bi nag daal attaque attaqué ma. mooy kan. Mahmoud Saleh Mahmoud <laughs> ñu xuloo fa xuloo bu métti. Ah. moo ñu bloqué complètement donc le cercle des amis de Macky à partir de ça ca la deewee complètement gisatuñu Macky Sall ba fii ñu toll. 2014 hmm? la woon ba fii ñu toll gisatuñu Macky Sall déggatuñu Macky Sall man nag ba ma xamee loolu ma ñëw ne leen hey mu ne ma ah ma ne ko man je si expert. Hmm. dem ordre des experts renouveler sama inscription daal di ñëw ubbi sama cabinet. ñëw sama cabinet di liggéey. toog di liggéey. waaw loolu daal laa mujj def. waaw te yi tamit ñu ngi koy euh, agité waat keroog bi président Macky Sall jëlee dogal tuddee stade Diamniadio bi président Abdoulaye Wade daanaka yëf yi. Euh, bon ñëpp yaakaaroon nen ne ñor na ba yàq ci des ndax lu jiitu loolu Masaalikul Jinaan bés ba nuy inauguré amoon na lu fa xewoon euh, président Ablaye Wade ak Macky Sall itam euh, lu bari wone woon ni ña ngay waxtaan. retrouvailles yooyu am nga ci yaakaar ba léegi. waaw retrouvailles yooyu dina xaw a compliqué. parce que Macky dafa commettre ay erreurs yu bari. li mu njëkk a def tëj Karim Wade Khalifa Sall ku yëngatu mu écarté wala mu tëj. topp ñoo xamante ne nii amuñu benn kii xëy na campagne moo leen boole woon rek mu ñëw nekk ak ñoom commettre beaucoup d'erreurs bon mu dem ba vous avez compris euh, bi mandat boobu jeexee ak erreur yi mu ci def mu war a def nag beneen deuxième mandat deuxième mandat boobu Ablaye Wade jàppale na ko parce que Ablaye Wade bu joxe woon conseil kon tey jii Macky Sall du falu léegi nag ba Macky Sall ba Abdoulaye Wade jógee Conakry ñëw. nekk fa di Alpha Condé waaw nekk fa di wax ay wax yoo xamante ne nii naan boycotté leen ak ainsi de suite kooku nekk na loo xamante ne nii euh, dafa jàppale Macky la waaw ñu dem deuxième tour parce que affaire bi ni mu demee euh, deuxième alternance bi Macky Sall euh, jàll. deuxième élection bi deuxième élection bi mm. Macky Sall se retrouve avec pour cent. Mm. ah. ñuy dem affaire yi di gën a compliqué diggante bi defe naa ci la dàq Sonko xalifa euh, Sall moom it rébellé wu. Mm-hmm. mu exilé Karim. Mm-hmm. léegi nag opposition bi nag commence di s'organiser. Mm-hmm. en conséquence en fonction de cela. ci biir loolu ñu constaté ni deux choses rek moo mën a sauver Macky Sall à l'heure actuelle soit mu daal di ànd. am appui euh, Ablaye Wade. parce que Ablaye Wade aujourd'hui dafa toll foo xamante ne fu mu far rek ñooñu gagné bu tolloo ci opposition bi Macky Macky day daanu bu tolloo de l'autre côté également euh, day daanu ma ne waaw mais qu'est-ce qu'il faut faire mu daat ne ma ma ne ko euh, bu ñu demee ma daat ne leen il faut faire attention gis nga ñun suñu temps dañu amoon benn électorat boo xamante ni lu leen wax ñu def ko mais actuellement avec euh, la situation actuelle ñun suñu temps jeex na. qu'on le veuille ou non bien vrai que le président des États-Unis à soixante dix huit ans lañ ko tal mais comme président de la République mais ñun suñu temps daal. seen wàllu wéy na suñu wàllu wéy na mais nag faites attention gis nga électorat bi ñu am. majorité bi ay jeunes lañu jeune lañ yoo xamante ne nii ils sont déçus te élection bu am ils vont peser donc ce n'est même plus même électorat bi. Mm-hmm. donc seen élargissement de famille libérale boobu. Mm-hmm. bu ngeen ko waaw de. waaw retrouvailles libérales kooku duggul ci bopp xale yi. Mm-hmm. beneen génération la am donc ñooñu moom booy bo ngeen xam ni euh, d'une manière d'une autre Euh, tey jii leader bi nga xamante ni moom la gën a fonk mooy Yewwi Askan bi avec euh, Ousmane Sonko avec Ousmane ñooñu ñoo gën a présent à l'heure actuelle te ñooñu dañuy diglu léegi nag ak bu ngeen réunir la famille libérale nga xam ne ñoom ñëpp sont vieux maintenant face à une jeunesse boo xamante ne nii ñu ngi nii di yéeg mais quest que vous allez devenir donc le problème ne par pose pas. kon yow retrouvailles yooyu pour amul sens. benn sens la amul. Hmm. te buñ ko defee c'est la moo tax am Ablaye Wade euh, a compris et je pense que ni duggatul sax ci réunification de la famille libérale parce que famille libérale bi buñ ko buñ ko organiser face à aux électeurs actuels les jeunes sont un peu plus nombreux que les autres là ça n'a aucune ko waree def mooy bi ma ki ñëwee. te li PDS dese ci tuuti crédibilité boo mayul. fa lay jaaree naxasaay fa lay jaaree jaaree naxasaay teg. kon Macky Sall risque de tomber te buy tomber day boole libéraux yëpp ànd ak ñoom. gars ñi nag daal di nekkoon nañu xoolaat suñu bopp. en tout cas man bàyyi naa politique xam naa sama bopp dem naa nekk naa expert sama cabinet ba nga ma fekk maa ngi nii di lijjanti sama bopp di dugg di génn. Hmm. âge bi ma am sax c'est que bëgguma rek. du ma bëgg a former nag ay hmm. jeunes. ñoo xam ne mën nañ jël rele bi et tout ça. Hmm. et tout ça mais suñu retraite jot na et tout ça. kon bokk euh, réunification la famille libérale. am ñu benn système boo xam ne dañuy discuter entre nous qu'on le veuille ou non ce léegi daal les jeunes yi ma gis mënatuñu def leneen te su ma doon Macky Sall nag maa ngi koy wax affaire u troisième mandat bii na jigéen génn pour yow mi ngi ci boppam mu ngi ci boppam hmm. même bu nekkul ci boppam dafa am ñu ko wër ñoo xam ne loolooy seen xalaat hmm. moo tax man ma koy wax ne ko Cheikh Touré sa grand frère. ma ma dugal PDS démb. démb ak barki démb ñëpp xam nañ ko nekk yow bi ngay takk sa jabar ñu àndoon nga nekk suñu xarit ñu nekk suñu lépp loola daal daf ñuy naqari bien vrai que bokkatuñu camp parce que d'accord tuñu ni ngay doxale mais nag nit ki boo ko xamee xam nga ko ba léegi moo tax ma lay ñaan bul topp ñi nga xamante ne ñu ngi lay dugal ci ay deuxième mandat ay troisième mandat ainsi de suite. le peuple sénégalais a changé xale yi fi nekk du ñu accepté lu bari li li nga accepté woon. Hmm. kon boog maa ngi lay xamal ni loolu boo ci duggee problème dina am te y a l'avenir nag sur le plan international sur le plan africain et tout. demal tey waaw dugal ci loolu. buñ la dugal ci ay troisième mandat yëf yi jeex na c'est terminé te li la koy won mooy élection yi ngeen di wax nit ñi naan. ah. local yi waaw local yi on a assez de communes ban commune ngeen am mais vous avez assez de commune mais da ngay xool centage bi. Mm. tu étais à 58 pour cent léegi tu es à 41 pour cent boo élection amoon da ngay dem deuxième tour te deuxième tour ku dem ak yow gagné la. Ah, président bu dem deuxième tour moom. c'est fini yaakaar waratu jàppale. kon boog man dama lay wax lenn loo xamante ni xam nga mën naa wax librement. Mm-hmm. parce que dépendre ma ci yow. calculé wu ma yàlla bàyyeewu ma. maa ngi évoluer incha allah te dama gëm suñu borom te li ma dund loolu ma ko dund bul dugg ci affaire waxu de troisième mandat ainsi de suite kooku maa ngi la koy xamal sa jabar mérité wul loolu say doom mérité wul loolu te fal day jeex ëllëg ak si biir ak loo mënti am da ngay xëy suba dee mm-hmm. surtout amati dara loolu daal maa ngi la koy wax te loolu lii nag bëgg naa ngeen ngeen ngeen génne ko. moom tey duñ ci dagg dara président Macky Sall ñu am yaakaar ne dina la déglu ndax ku ko xam nga ku ànd ak moom dem nga. Euh, ci kàddu yooyu ndénkaane yooyu lañuy jeexale émission bi euh, maître Cheikh Touré ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte dalal la. ah loolu mooy li nga xamante ne moo ci nekk parce que politique boo ci nekkee. Euh, ñëw fekk Sénégal ni mu meloon. Senghor yor ko ba jox ko Abdou Diouf. Mm-hmm. Abdou Diouf ñëw di traîner les pieds di ñu jël suñu ceinture takk ko di xeex ak moom ba jëlee ko fi. bi ñu fi jëlee yàlla indi fi am Ablaye Wade Ablaye Wade moom tamit def li mu waroon a def ma Macky sàll ñëw àggale yi nga xamante waroon na ko def amaat yeneen projet mais loolu nekk na loo xamante ne nii sutura la. kon boog man li ma bëggoon rek mooy nit ku ci nekk day gëm suñu borom. parce que ay mortel lañu te li ci nekk y a pas de problème léegi nag ma lay ñaan rek. nga xoolaat sa bopp te pour dugg ñi nga xam ñoo ci nekk di la di la remercier di la féliciter parce que du ma dem ci benn rajo du ma déglu benn rajo dinaa déglu rajo yëpp amul benn information bu të waaye duma dem naan leen émission bii wala émission bële wala quelque sa comme ça yow nag boo xalaatee ba nga xamante ne nii kii ngay waxal kat am na rôle bu mu joué sur le plan politique ñëw jox ma sa micro. kon boog dama lay sant. parce que li may wax ce ne pas pour nous. c'est pour le Sénégal. c'est pour les jeunes. Mm-hmm. te tey jii su ma sañoon Sénégal toll foo xamante ne nii alhamdulilah. Mm-hmm. ñëpp du ñu ñëwee. léegi dernière chose bi ICRA na ngi nii. Mm-hmm. di xeex ak kii nee nañu nee nañu nee euh, nañu problème mu blé bi dina indi lii fi ma woo léegi benn ingénieur sama grand frère ingénieur la mu nga nekk euh, agronome ma ne ko Sénégal ndax bële dina fi wax mu ne laay la bële dafay sax comme ni ñu bëggee. Hmm. ma ne ko nag c'est une occasion que ñu développer culture bële bi. Ah, ba ñu wéeru ci kenn ba ñu wéeru ba pare nag ñuy consommer. Hmm. li nga xamante ne nii moom moom la ñuy bay. Hmm. loolu nag sëgam euh, demee na noonu. Adja ma leen di gën a remercier di leen gën a féliciter di leen ñaanal la ngeen benn yem fii ngeen nekk dem ba nekk satellite yi mhm. dem ba am seen i télévision mhm. di évoluer amiin vraiment sama euh, ci euh, démb ak président Macky Sall mi fi nekk tey ñu lay gërëm bu baax a baax ci li nga ñu xamal yépp euh, wax dëgg yàlla ci jaar-jaar yi ci première alternance bi ak deuxième bi jàngee lu bari yaakaar naa ne ñi ko fekkee itam fàttali li na leen lu bari eh, ak eh, surtout seen jël ba ca 2000 2000 mille 2012 <laughs> eh, ak président Macky Sall ba nga weetee lool ca bureau ba <laughs> jërëjëf Maître Cheikh Touré mbokk yi jaa ngeen jëf cànd beeg Rewmi FM ñuy gërëm Jaabo jàll mi ne woon ci jàppandal gi démb ak tey la woon dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci Rewmi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu yendoog jàmm